comme nañ leen ko waxee ca bopp ak ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi Senelec ñooy kat ñu daal di ànd ak dal ak tey ndax kat lépp loo xam ne coupure la ci wàllum tàngoor gi rawatina weeru koor yi du am biir Sénégal te itam ñëwaat nañ ci li nga xam ne moo di perturbation yi amoon ci fan yi maanaam dog-dog yi ñu gis ci yenn gox yi tey lañ ko xamale ci ak ndaje ak taskatu xibaar yi ba Badara Diop ak Xaali Ndiaye ña nga woon ca jotaay ga taskatu xabaar yi dafa doon àddu jëm ci anam bi matuwaay yi mu jël ngir daal di jox courant bu doy nemmeeku woon jamono ji ci yenn gox. fii nga xamante ni courant bi bu ñu koy dem ci ba ci kër ku nekk indi bi dafa yaatu léegi ñuy séddale rek dana am ay nimel bu ñu méngalee cumul bu ñu amoon juróomu gigawattheure ren nag ci 2000 mu di nag ak wàññeeku bu toll ci ñaar fukki rëq-rëq yi ñu nemmeeku woon dara waralu ko lu ndax li fi xewoon daaw ak daaw jég mu juróon ci réew mi kenn déggul ñu ne ah délesté nañu ndax euh, combustible amul kenn déggul tamit ñu ne délesté nañu ndax euh, production bi doyul maanaam centrale yi dañu taxaw wala yu mel noonu loolu nag li ko waral mooy mesure yi nga xam ni tëral nañ ko te du ko doxal kilifay Senelec nag daal di jël matuwaay yépp ngir daal di jox askanu Sénégal courant bu doy ci biir weeru koor wi. du ñu euh, xaajaatle weeru koor rek ak euh, ci mbirum mbirum mbirum joxe courant laa wax de du euh, weeru koor ak weneen weer parce que client bi moom toujours mi ngi laaj courant bëgg di ko am saa yu ko soxla donc matuwaay yi ñu jël maanaam matuwaay yooyu mooy ñuy mooy tax. ñu weeru koor bi ñu continuer leen jox courant ni ñu leen ko daan joxe euh, te am nañ si yaakaar bu baax. yooyu la dogal nag mu ngi lalu ci programme d'urgence de distribution bi ñu lancé ci mois de décembre ba léegi lekk bëggu ci lenn lu dul jox courant bu doy ñii di askan wi saa suñu ko bëggee. Badara Diop kilifay Senelec yooyu tamit ab communiqué gu ñu yegg sil fii ñu ngi xamale kat ci yokk gi nar a yokk seen réseau yi rawatina fu la ca ñi nga xam ne ñoo di borom woto yi ñu ngi leen yëgal ne kat li ko dalee jam ñaajo ba jaari Kaolack ci dimanche fukki juróom dimanche juróom-ñetti fan ak dimanche fukki fan ak juróom léegi loolu lépp dinañ ko gàllankoor ndax kat seen kam camion yi ñu yóbbu wala mateel yi ñoo bëri ba mun naa gàllankoor li nga ne dem gi dikk gi ñu ngi laaj fan yooyu nag képp koo xam ne fas ngaa jël boobu yoon nga jël say matuwaay wala tamit yan yoor yan yan yoor ngay mën a jaar ngir teggi nga xam ne boobu boobu yoon la eh, beneen xibaar ci la nga moo am fële ci méridien muy am ndaje moo xam ne ñaari fan la ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum aéroport wala ñu ciy liggéeyee ñoom dañ doon tàggat ngir kat ñu gën a jël ay matuwaay ngir yokk kaaraange yi nga xam ne mooy am ci aéroport yi ndax kat dañuy bañ li nga xam ne moo di wàllum terrorisme dugg fa am ndaje moo xam ne lañ fa amal ndaje moom nag lu toll si ñaar fukki réew ci dënd bu Afrique ñoo fa daje dañ ciy déglu kenn ku jiite ndaje moom di Massourang Sourang ci ci micro Mame Ndiawar Diallo projet bi concerné képp ko xam ni